salaamaaleykum ma ngoog fa woon saa su nekk fañ leen di nuyu muy ci Dakar Net ñu fas yéene waxtaan ak yéen ci seen émission bi nga xamante ni mooy Top Actu yi ngeen ci ànd ak votre serviteur Davida ki nga xamante ni mooy Lentou Sable di Ousin saa su nekk rek nii lay demee ñuy am mbégte di jàkkaarloo ak yéen waaye tamit di am mbégte ci seeni i encouragement ñuy waxal ni saa su nekk rek ngeen di continuer di wéy di suivre lépp loo xamante ni rek moo di ay information rawatina yu gën di faar ñu ñëw ci waxtaan ci ak yéen ndax xëy na yow mi nekk ci sa ginnaaw clavier sax li nga xam xamuñu ko waaye saa su nekk rek damay wax naan dañuy partager moo waral tey ma partager ak moom na ma koy defee saa su nekk muy Ouzin l'Intouchable ziar naa la. Davida ah, maa maa ngi lay la di la a baax. namoon naa la gars yi namoon nañu la. waaw ñoo leen raw ñoo leen raw xam nga chaque weekend toujours day nekk plaisir di jàkkaarloog mbokk internet Dakar mm-hmm. net yi di jox li nga xamante ni moom moo gën a fës. Mm-hmm. ci actualité bi. mais xam nga li ma gën a neex tey sa chemise dafa baax. merci beaucoup mais ci kanam dinaa wax fa laa ko jëlee ku ma ko jox. Ah, kon baax na an lu gën a fës nga nuyoo ñi nga xamante ni ñu ngi ko jàkkaarloo. alors ginnaaw bu ñu leen nuyoo c'est toujours un plaisir quand même di ànd ak yéen ci euh, émission bi nga xamante ni mi ngi tudd euh, Top Actu ñuy faral di jël li nga xamante ni moom mooy actualité ci biir réew mi. Mm-hmm. Mm-hmm. daal di koy waxtaanee indi ci ay pourquoi pas ay ay solution mm-hmm. wala sax ñu delloo leen solution ñun ñu wax li nga xamante ni euh, loolu lañ ci xalaat tout le temps ñu si ànd ak Davida le grand chroniqueur. kontaan nañ bu baax a baax ci topp bi ngeen ñu topp. Mhm. daa ah, bon comme ni nga ko waxee. alors li ci gën a fës xam ngeen ni weekend bii nii ah surtout euh, démb li nga mm-hmm. xamante ni moom mooy euh, projet de loi bi nga xamante ni ñu ngi koy euh, ñu ngi ko doon voté mm-hmm. fële sa l' assemblée nationale mm-hmm. naam projet bi jàll na mais jur na pëccëxoo ak jàppanteeg yu bëree bëri am na ci alors démb tamit fi nga xamante ni moom mooy mbaaw gis nañ ni juróom-ñaari xale ñoom ñoo ñàkk seen bakkan ci géej gi maanaam dañoo lab ñett ña ña ngi leen di wër gisaguñ leen loolu tamit am na luñ ci war a mën a wax également dinañ ak nga xamante ni euh, moom mooy Ameth Thiou seen euh, bisu bi ñu bisu woon procureur de la République Serigne Bassirou Gueye daal di leen euh, convoqué enquête leen def leen mandat dépôt le 29 join lañ leen war a ate loolu également bokk na ci ponk yi ñu war a waxtaane ak yeneen i mbir loolu la ñu war a waxtaane war ko yaatal nga war ci joxe sa avis alors fi ñuy démarrer mooy démb projet de loi bi déjà la ñuy wax avant ñuy wax fee yi amoon ci biir assemblée nationale bi donc bi xanaa ba ma la jaajëfalee wax dëgg yàlla si sa mëni bu riche bi mëni la boo xamante ni xëy na ñi may suivre aussi euh, am nañ ci seen wax am na li nga xamante ne aussi bu doon ñoom it la ci loolu lañu wax mais comme ni nga ko mm-hmm. bu ñu demee ci li soxal wàllu projet boobu ndax Sénégal du bulet mm-hmm. ñu wax waxu projet voté nañ ko à l'Assemblée nationale du bulet mm-hmm. waaye xëy na bii fi mu ñëwee la waaye ñi ko indi ñu porté li nga xamante ni aussi moom mooy moom mooy projet boobu ak projet boo xamante ni ci moment bi ñu koy waxee contexte bii mu nekk lu bari ñu contesté ko. non ça parlait la terror terrorisme quoi voilà la doon la doon voilà ci waaw xam nga boo nee mbirum terrorisme rek loolu ça veut tout ndax Sénégal dafa am ay ay ay ay réalité Sénégal bi muy Sénégal ba tey yi ngay dégg ci yeneen i dëkk yi déggloo ko Sénégal moo tax bu ñu nee dañuy indi nag ndaam projet boo xamante ni mooy jëmmal li nga xamante mooy xeexu. terrorisme mm. ndax bu let mm. projet bu mel ni am ba mu jur pëccëxoo bi mm. donte am na ñi nga xamante ni doon nañ leen ko jiiñ ne ñoom kat li ñuy préparé day fësal maanaam mbarum terrorisme ku ci man ne imaam Ndaw récemment ki nga xamante ni mooy Sayer Seck moom it defoon nañ ko Sayer Kébé autant pour moi donc mu nekk loo xamante ni nag bu ñu demaate ba ne dañ koy voté fii ah am ñu ci d' accord am ñu ci d' accordul léegi nag le problème Annick ñi ci d'accord fan la ñu teg projet bi ni baax na ñu amal ko ñi conteste fan la ñu ko teg muy nag ay questions yoo xamante ni ñu xamul ni man ñoom moom la ñuy wax ñii nag dëggal ko ba noppi fan la ñu teg dëggal gi lan moo waral paccaxoo gi muy question boo xamante ni yow mi may suivre yaa ngi koy laaj aussi man dama jàpp ni comme ni ñu koy waxee dañoo am ay réalité si dëkk la boo xamante ni coow yi am ci yeneen dëkk yi mënuñu ko méngale ak Sénégal Sénégal dafa am ni mu tëddee Sénégal bañ ñu ko benn bàq la am muy réewum teraanga mais li ñu gis démb ba mu jural pëccëxoo yi kon loolu du teraanga donc en fait loolu moom mooy par exemple moment bi ñuy voté ah mhm. ak avant ñuy voté mhm. pëccëxoo boobu loolu dina dinañ ci ñëw en fait mais fi ma bëggoon taxawee tuuti mooy mhm. bon dañuy jàpp ni dafa projet d'urgence la loo xamante ni si dañu ko patam patamee rek ñëw pour voter ko mhm. euh, amul consensus ndax boo xoolee ci euh, projet de loi bi nga xamante ni daf doon dañ doon criminaliser mhm. li nga xamante ni mooy wàllu viol mhm. boobu dañ ci impliqué woon ñi nga xamante ni ñoom ñooy société civile bi donc voilà ñenn ñi dañuy jàpp ni euh, pourquoi pas ñu waroon jël seen temps même bu fekkee dañuy allonger allonger yi maanaam gën a yokk terrorisme daan yi gën ko yokk est-ce que jarul woon ci benn côté yi ñu waxtaan ak société civile bi ñoom yaanaa maar ak yeneen gars yi si si topp non bu fekkee da ngay bëgg tudd société bi mm-hmm. defe naa ak ñi nga xamante ñoo ŋànk yeneen yeeg yeneen yi muy ci côté mouvement yeeg yu ni mel mm-hmm. te busra bu ñu gisee ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk di ay opposant ñoom ci seen bopp accepté wuñu ko mais bu dee accepté wuñ ko ñoom aussi am nañu raison li tax accepté wuñu ko pouvoir bi aussi bu fekkee ni moom dafa na force reste à la loi aussi ça pose problème li nga xamante ni nag man moom laa ci gën a mën a gis ci jàngat parce que man su may wax waxuma pour opposition bi waxuma aussi également pour pouvoir mais damay wax pour le sénégalais lambda mhm. bi nga xamante ni comprendre affaire yi comment ça se passe mhm. parce que tey projet bu ñu ko fi mosoon a indi boo doon dafa am consensus bii mënut a am consensus. parce que li li ko ëmb ci biir loolu moo tax nit ñi ne duñu ko voté. parce que bu ñu leen bëggee tere lii di marche nga ne duñ ko fi defee. bu ñu la bëggee tere li nga xamante ni mooy lii ak lii ak lii te ñu gis nii ci période bu ñu war a jëm muy période élection yi. te ki nga xamante ni moom moo forcé nit ñi ci wàllu wàllu projet bi na dañu koy voté muy président Macky Sall dafa bari ñu fi nekk ci Sénégal te nawlootuñu ko. pourquoi nawlootuñu ko ndaxte dañuy dugal ci seen bopp ñu ne. président Macky Sall mooy le président boo xam te dafa du dafa judd après les indépendances ñu amoon confiance ci moom au départ jël ko jox ko lépp am na am na am moom. non ba tey mun na nekk mais. du du pas généraliser que seen affaire am na bu ko topp am na Sénégalais bu ko topp mais mais ñi ko toppul nangul leen ko quand mooy li ma lay expliquer. foo mën a gis ci àdduna am na majorité bi am na minorité bi. Mm-hmm. tey bu fekkee ni soixante-dix députés yi ñoom ñoo ko validé. ci biir soixante di député yu am na ñoo xam te sax dañoo contesté mm. te ñoom ñëpp boo xoolee même grade la ñu am bu dee nag ñoom dañoo ne lii arrangé wu leen projet bi antiterroriste bi arrangé wu leen c'est parce que ñoom aussi xam xam nañ lan la ci président Macky Sall jublu bu fekkoon ni nag daf ko defee ci beneen contexte mais pas moment bi nga xamante ni li fi jot a xew ci ci ci ci ci mois de mars bi gis nga ko fii mm. xëy na dama ne loolu lay prévoirat ba bu bëggee tey tey ne day def forcing sax troisième mandat bi keneen dootul amati droit wu. Mm-hmm. nii mi ngi def marche. kon moom lu muy waajal la président mac Sall moo taxit. Mm-hmm. pëtaxoom yi di commencé di bari ci fànn boobu d' accord d' accord en fait dina dina xaw a tuuti ah pour ñu jox si yenn développement yu yu clair yi dans la mesure où que euh, en fait euh, sama euh, sama sama naataango du juriste man également bi koy posé question du ma juriste donc naturellement dinañ xool un de ces jours mhm. ñu invité koo xamante ni xam-xamoon fa màcc jëm ci wàllu yoon peut-être moom ñu mën a tojal tojal tojal mbir mi alors bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu duggee si bu ñu génnee si projet bi war a waxtaan un peu ci ci li nga mhm. xamante ni moom moo fa doon am alors ñu gis ni Ousmane Sonko ak Mbéri Silla ci buntu assemblée nationale dafa amoon ay jàppante ñoom ñaar ñu naan kii daf ko saaga kii nii daf ko bumax donc voilà noo gisee jàppante boobu. waaw man moom li ma ci jàngat. Mhm. te xëy na moom ñu lay ku ci nekk di ñu suivre ji jàngat mooy yebaate la. Mhm. yebaate weesuwul askan bi toog di xaar li leen lëjtam ci seen xel lu leerul ci seen xel niw li moo tax ñu bëgg a anticiper. Mhm. projet bi. mu lëndëm ci yenn xel yi li tax mhm. coow li di bari gauche bari droite ñi naan dañ koy ñi duñ ko loolu la askan bi doon xaar ci ñi leen fa représenté mi les députés. Ah, loolu wax nañ wax nañ wax nañ ci nag. ba d'ailleurs voté nañ ko quand même. lan nga bëgg a wax yow coow li. non acte bi. li coow foofu lu xew foofu man moom laa waxee. ma ne li yebaate la. Mhm. mbir yi soit disant mbir yi si la bu dee moom moo attaqué Ousmane sonk wala Ousmane sonk moo attaqué mais ku nekk indi nga sa version Ousmane Sonko nee na waa jooju ngóor soo sosa la ko tuddee ne yàgg na koy di ut di provoqué waaye ñam na dootul defati mbir it nee na massage yi nga xamante ne Ousmane Sonko. waaw ñu ngi ko dañ ko doon massé. xamul fu mu ko jaar xamul sa fu mu ko jaar mais je pense que ni massage sax du tax nit ki am force. Mhm. da lay nga mun a am def relax. mais man li ma ci jaaxal mooy ci vidéo yi ma gis yëpp mbir yi ay maraakisam laa gis. yow yaa gis maraakis. waaye gis naa maraakis xam naa du ñàkk peut-être suñu suñu réalisateur bu ñu ko wan après bu doon bu doon musoo gis kuy xeex naan wàcc ma ku mën ñu naan wàcc ma ah ah. gars yi génn nañ sa ay image yoo xamante ni bi muy def selfom ak bi mu bi affaire yi amee moog Ousmane Sonko bët bi dafa xaw a euh, tëju tuuti. na nga boo waxee Ousmane xaw ma ku jël ku ci jël ko si ñoom ñaar. loolu bëgg naa après moom mu leeral ma ci ku ci jël ko ci ñoom ñaar. d'accord Ousmane Sonko moom daa encaissé wala encaissé wul. Hmm. mbiri moom xam naa ne encaissé na. Hmm. ndax bëtam bi dafa déformé wu benn. Hmm. ay maraakisam dañ ko ko foral. ñaar d'accord mais est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que loolu la war a doon quand même bët bi déformé wu na maraakis bi lañ est-ce que loolu la war a doon par exemple que ñoom xaaruñu ko. xaaruñu ko voilà loolu wax. du lu ñu xaar ci mbiri du ñu xaar ci Ousmane Sonko. Ousmane Sonko même s'il a fait benn acte de mooy mu waxal ne kat diw mi yàgg na may di topp. waaye lii ak lii ak lii. naa mais mën na nekk accusation la parce que xeex moom bu amee ku nekk da ngay joxe sa version. waaw mais mais Sénégal yi tamit dofuñu. Mhm. Sénégal yi dofuñu. buñ leen jàppee dof xëy na ñoom mën nañ def lu la neex foofu. Mhm. mais man li ma bëgg a mooy ñàkk fayda moom weesuwul. Mhm. ñu jël la jiital la ngay dawal suñu oto di dawal suñuy carburant di def lépp. ba noppi li nga xamante ne moom lañ fi indi muy projet bu ñu arrangé wul. sëñ bi yaa xëy si ngeen ci nekk di pëccëxoo di xeex di dóorante du mm-hmm. loolu la ñu xaar ci ñoom. da d' accord. déception bu Sénégal yi mun am. Mm-hmm. mooy déception boobu li fa xew ci moment bi nga xamante ni mm-hmm. projet bi ñu indi. ci di wax mbirum antiterrorisme ñoom ñooñu doon fa xeex jëmmal nañ ko. foofu rek waroon na tax ñu arrêté ko. arrêté arrêté projet bi du yàlla. parce que tey eh, terrorisme yi dëgg mi ngi noonu léegi man sax dama boo xëyee di yow xam nga war a jaar si Davida léegi dootuñu tudd Davida xam nga lu ñu ma dañu naan le terroriste ba xam yeewu nga. Mm-hmm. géej bu ñuy nalaw def ko challenge daal di ne terroriste bi est-ce tëdd nga. mu nekk loo xamante ni. Mm-hmm. nit ñi yaa ngi koy takkal muy étiquette. Mm-hmm. Mm-hmm. mais boobu moom foofu man damay jàpp ni responsabilité euh, bon Séné sénégalais sénégalais sénégalaises yi la. dans la mesure où en fait wàllu terrorisme ne warul nekk sax quand même lu ñuy lu ñuy lu ñuy banaliser di ko foxantoo di ko estater naan yow terroriste en fait ni waruñu ko sax wax. parce que déjà déjà déjà menace bi. menace bi mi ngi fi parce que boo xoolee Malek euh, Malek ak dëkk yi nga xamante ni ñoom ñoo ñu wër alors pour avancer un peu mooy dañuy ñëw ci fond bi. dañuy ñëw ci fond ci mbir bi. li nga xamante ni moo ko moom moo moom lañ doon waxtaanee. Mhm. mais ma li ma si remarqué mooy bon war na am werante normal na. parce que mhm. démocratie lañ nekk. Mhm. mais gisuma argument parce que d' ailleurs ministre bi bu muy wax benn réponse benn euh, question rek la répondre parce que yeneen yi dañuy ay appréciation la yeneen yi ay kii la donc moom sax si boppam santir na ni waxuñu ko. lenn loo xamante ni peut-être ar am na ay argument mhm. ay taggaate la kii day ñëw tagg kii mhm. kii ñëw euh, xas kii kii tagg kii kii xas kii moom mu ñëw wax benn wax après ñu tëj mhm. donc naka nga gisee manque d'argument boobu à l'égard de nos députés non ma manque bi moom dama ne du manque d'argument mais xam nga lan la ñàkk gëm sa bopp soit soi en certains députés yi dañoo ñàkk a gëm seen bopp ñu baal ma amuñu fulla amuñu fayda xam nga li tax parce que man mënuma concevoir président Macky Sall ñu jël suñu xaalis jox ne ko yow la ñu jël lépp jox la jël suñu oto jox ne ko yaa dawal ñun fu ñu bëgg Macky jaar fa la war a jaar. député ñun déggoo ma de waxuma la député yi de damay ñëw ndax ñoom ñëpp président Macky Sall moom moo leen yilif foofu laay jaar. Mhm. ñun sénégalais. Mhm. bu ñu jëlee suñu xaalis jox ko Macky Sall jël suñu oto jox ne ko fu ñu bëgg nga jaar ñun foofu la ñuy jaar bu dee ñun ñoo mën a taxaw am fulla bu mel noonu war nañu amaat fulla bu fayda boo xamante ni député yi ci boppam. du ñu yeb yeb gi weesuwul lu président Macky Sall indi rek ñu accepté ko loolu yebaate la te député yii xëy na seen benn xaalis boobu ñu leen di fay seen salaire boobu moom moo leen tiital mais nañu bàyyi xel nit tôt ou tard luñ la mën a indil ci projet. boo ko voté dëggal ko nga lor nga sa askan lor nga ñi war a ñëw mais booy dee booy dee di jàkkaarloo ki nga xamante ni. muy noonu da d' accord mais mais bon en fait loolu nag boo xoolee daf ci dafa xaw yàgg hmm. malheureusement parce que boo xoolee temps wu euh, président Ablaye Wade Doudou Wade gis nga bi mu jiitee euh, député waaw groupe groupe parlementaire bi gis nga hmm. tamit souvent très souvent daf doon demee noonu ba sax par exemple boo d'accordul ak ñoom dinañ fexee ba créer ay loi nu ñu lay écarté et que hmm. président Macky Sall si lañ ko dindee président de l' assemblée nationale bi mu nekkoon euh, ci la juróon tamit mu daal di dem ba yàlla tey mu jox jox ko réew mi donc est gisoo ni solution bi warul nekk par exemple la Macky Sall dafay bind listam rek mën na la fekk sax nga nekk benn benn mécanicien ak benn soudeur mën na boole en fait damay jox exemple quoi. Hmm. ku nekk mën na mën na jël parti bu nekk rek ñëw. lijjanti wu la quoi rek boole hmm. si listam. yow da ngay ñu tëmb la foofu mi ngi mel ne benn mango rek bu tëmb si biir kër kenn du hmm. xam fan la jóge kooku xamul lu xew nu nu muy gisee rek lay waxee. Ah, parce que ki ko fa teg est-ce que nekkul ni par exemple ñun sénégalais yi ñoo war a am habitude di bañ a jox majorité pouvoir bi parce que bu ñu ko joxee majorité tout temps dafay revenir à un peu ci ligne rek quoi lu ñuy ñëw mooy casting yaa ma neex la fii du président Macky Sall rek. que ñëwul si ñun ñun ñuy war voter. Ah, parce que man man gis nga aussi lu ma gën a tiisoo saa su nekk mooy Sénégal li ngay dégg ñu ne la le président Macky Sall dem na bitim réew indi na def benn signature protocole d'accord lan moo nekk ci seen xamuloo ko xamuma ko xamoo ni jaay nañ Sénégal xamoo ni jaay xamoo ni wax nañu ni ñun ñëpp dañoo war a rey mm. xamoo ni parce que d'accord signé mm. nañ ko mm. protocole d'accord signé nañ tel protocole signé nañ loolu moom rek la ñuy am ñun sénégale bi nga xamante ni ñoom ñoo nekk foofu fond les quatre les ñoo xamante ni amuñu sax droit à l'information mm-hmm. mais ñan ñoo leen war a di informer ñan ñoo war a doon seen mooy ñi ñu jàppoon ñooy député yi mm-hmm. mais député yi fi nekk nii mm-hmm. sëñ bi sëñ bi gis nañ ko ci génn na fi taxaw mu ne man président Macky projet bu mu fi indi ma voté c'est cette même personne moo taxawaat démb mu ne mu waxaat cette fois-ci maa fi taxawoon waxoon lii ak lii ak lii ni lu ñu ma fi indil ma voté mais président Macky Sall bii moom ànduma ci mhm. le pourquoi àndoo ci mhm. Euh, bon ñu gën a avancé tuuti ah maa ngi jéegul ah maa ngi lay dagg alors mais ministre bi sax man li ma si gën a tamit jaaxal mooy mhm. dafa répondre ci provocation yoo xamante ni ñu ngi ko doon def mhm. parce que moom ci français boo ko tekkee ci olof mooy du du ma du ma tontu maanaam bu ma mbaam wéexee du ma ko wéexaat est-ce que moom ministre de la république est-ce que war na wax genre moo yooyu ba d'ailleurs euh, première bi presque kii nañ ko lu yàgg ah, maanaam annulé pose nañ ko temps mhm. presque quinze à vingt minutes. Mhm. di di di arranger pour à ce que mu mu jëlaat parole parce que daf leen daf leen daf saaga si ñoom ni ñu ko jàppee. Mhm. bu ma mbaam wéqee du ma ko du ma ko wéq parce que du mbaam. mooy mooy est-ce que na war na détaillé quoi parce que nga tey bu ministre waxee loolu. moom xam na li tax mbokk. yow bu fekkee ne da nga ne est-ce que député yi jàppee nañu ñun Sénégalais yi ñun population bi ay nit sëñ bi dama ne la gis nga am na loo xamante ni du hasard. nit ki loo ko jàppee gis keneen ku la jàppee loolu. dañ lay wax parfois ne la même la parole perd ce que le silence gagne. ak koo mën a doon. ministre bi bu ko waxee xam na ñi mu ko ñi mu ko sekkal mais président Macky Sall aussi soo xoolee li fi xew yëpp dafa xam sénégal yi. moo tax xam na fu mu leen di jaar moo tax dara du ko fëlax moom moom président Macky Sall bu gars yi nekkee di wax jàll na fu muy jàll sol na ay lunettes am dóor na cravate départ du lijjanti sax Sénégal yi ñuy wax loolu la ñu jàpp yi kon ñoom c'est pas pour rien du tout ñuy xuloo ko xeex ak di ŋaayoo ministre bi aussi li ko wax li mu wax fu leer la ko teg du tontu il n'a pas besoin de répondre à leurs ah. malheureusement sax ci benn côté ñu am na ñu naan ko mu yëkkatiwaat dossier Adji mais est-ce que ministre bee ko war a moo war a soulever waat dossier wu euh, enquête moom moo ko war moo ko war a def parce que boo gisee ni ñuy waxaat dafay mel ni ministre mooy en c'est vrai que moom moo nekk ci kaw procureur de la République mm. mais ni ñu doon ni ñu ko doon waxee ñoom ñoom député euh, parti APR bi dafa mel moom rek dafa war a xëy rek signé waat wala woote waat ñu ñu yëkkatiwaat dossier boobu alors mu nekk ay mbir yoo xamante ni foofu faaw mu wax ci gis ah. ñu demkee la yebaate weesuwul ci période bi ñu war a waxtaanee li nga xamante ni moom mooy antiterrorisme bi nan la ñu voté loi bi duñ ko voté lan la ci yoonu dossier wu Adji Sarr di loolu moo njëkk nekk yebaate mm-hmm. d'accord kan moo kan moo jiite assemblée na Moussa Niass moo ko jiite et pourtant bi gars yi di wax wax jooju waroon na am benn wax bu mu yëkkati parce que dañoo war a tëj fermer fermer dossier boobu c'est pas au ministre de de jël di wax nangam wala sax ñi nga xam te ñoo fare ak APR ñoo war a wax loolu. Mhm. Mhm. loolu yebaate la de. député yi dañoo yebaate. d'accord yebaate lañ def parce que euh. faale wuñu sénégalais yi de. Mhm. seen oto yi ñu leen jox ak seen salaire bi ñuy fayee ko noonu. mais faale wuñu sénégalais yi. loolu yebaate la sénégalais ñoo war am seen fulla am seen fayda du ñuy booleek benn wax. nañu bàyyi ba élection yi jot ñu dem si urne yi def la def alors bu ñu bu ci jigee ci mbiri député yeeg mbiri Ousmane Sonko la ca xewoon démb donc dañuy ñëw waxtaan ci li nga xamante ni euh, mooy lu doy waar quand même donc li nga xamante ni moom moo am fële ca euh, place Mbao euh, cité Cyprès géej boobu nag démb daa na yóbbu juróom-ñaari xale ñett ña sax ñu ngi leen di wër te gise guñ leen mhm. muy lu doy waar bu ñu ko booleeg ñi nga xamante ni ñoom ñoo génnoon àddina fële ca place Malika mhm. foofu tamit daanaka mën na fukk mhm. boo xoolee fukk ak ak juróom-ñaar presque daf lay indil ay 17 ba ba 18 convaincre parce que ñett yi tamit ñu ngi leen xool donc à l' espace de 15 jours ñu ngi am presque 20 morts euh, ci ay xale yu ndaw. Mhm. ci ci plage yoo xamante ni dañ ko interdit mhm. donc voilà yow naka nga gisee euh, cas de noyade yi di continuer nii. bon xanaa di am lu ma ci metti lool waaye di mhm. jaale ñi nga xamante ni ñoom ñoo ci joto ñàkk seen bakkan. mu doon loo xamante ni ma je me dis tout temps y' a de noyades yi. le pourquoi xale yi di fréquenter plage yi. souvent da ngay gis gaa yi ñu koy jël daal di reprocher parents yi certes am na ay parents yoo xamante ne dañoo démissionné ci seeni doom la taxoon ñu jur xale bi c'était pas benn affaire bu plaisir dafa am dañ ko jur rek sànni ko ñoom loolu ci jubloon mais du plaisir xam nga doom plaisir la balaa nga xam ni plaisir la xoolal mu dem ba war laa jariñ muy nekk def ay actes yu rafet da nga ciy kontaan mu doon lu plaisir ci yow mu doon fierté boo xamante ni da la koy apporter mais soi-disant yeneen i parents yi ñoom dañuy bëgg di sacrifier seeni doom léegi bu fekkee da bëgg a sacrifier sa doom dajeeg nguur ci ñi nga xamante ni ci biir nguur gi ñoom tamit dañoo irresponsable ñoom dañuy jàppale ci sa sacrifice bi nga bëgg a def mu feggoo ak ñi nga xamante ni ñoo war a seytu mbir moomu mu nekk nag ñett pàcc yoo xamante ni ñoom. Mhm. association nañu sacrifier xale yi ci la ñu def. Mhm. la association nañu sacrifier xale yi Malika la tàmbalee. parce que barki dem maa ngi ci doon waxtaan ak ki nga xamante ni adjoint maire la. Mhm. Talla Gadiaga adjoint am la. Mhm. muy Bakary Gadiaga ma koy nuyu. bi ñu waxtaan ma ne ko yéen Malika gis ngeen nu mu mel xale yi amuñu beneen ndax fi ñu waroon am lépp jàngeen ngeen ko. fi ñu waroon maanaam yëpp jaay ngeen ko ba ci seen terrain de foot boobu noonu xam naa boobu moo ci des mais xale yi ñoo taxaw ne buñ ko jaay sinon bu doon loolu dañ koy jaay te bu boobaa xale yi benn destination am mu leen pression bi mhm. mooy ci géej gi la ñu amoon. ma toogaat gis ko mu def si biir statut comme quoi que nii ils ont besoin denk ñi ñi mën a ñi mën a fii nageur dañuy soxla wax ñu ne bu doon maître nageur dafa yomb mais des gens qui savent nager <laughs> loolu yomb na man mën naa fii di te du ma maître de te man ku ma bëggoon def ni maître nageur man ma soppali ko sama bopp def maître noyeur dama lay noyer mun naa fii ça ne veut pas dire que nii mun naa sauver vraiment mais li ma gën a métti dans tout ça mooy cas yi li muy am yëpp cas yi li muy am yëpp amuñu benn taxawaay boo xamante ni ñoom taxaw nañ ko ci lu dul ma gis barki Dembo Ndiaye ay policiers yi wàcc foofu ma ne waa xanaa kon policiers yi bu ñu gisee ko doon noyé nii rek dañuy daw mee simmeeku seen tenue dem fa. wala dañ leen fekk. pour ñu non policiers yi policiers dañuy taxaw pour kenn ba ñu dugg dee. parce que waaye yow daa tere ñuy dugg fa. gis naa fay ñu nekk ci ci tefes bi terewu ko à la place des policiers am na fu ñu waroon a mën a nekk que ñuy nekk ci géej gi mais policiers yi circulation bi nañ fa dem. policiers nañ dem renforcer ji li nga xamante ni moom mooy suñu frontières yi policiers yi war nañoo dem feneen fu bokkul taxaw ci plage yi plage yi dafa am ñu fa ñu fa moom mooy les maîtres nageurs qualifiés certifiés ñooñu ñoom la ñu war a jël teg leen ci plage yi mais aussi tegal leen fa ay ballon yoo xamante ni mooy panneau yi ñuy interdire que ni nit ki fii waroo fee dépenser loolu la ñu waroon a def mais malheureusement defuñu ko mhm. li xew mbaaw mhm. mooy répété waat feneen du du Malika la woon. Mm. mu ndaw mbaaw. Mm. ba tey Sénégal nga nekk de demoo Mali. Mm. te mooy continué waat Almadi suba. gannaaw suba mu dem am gannaaw waat suba muy dem mais qui seront les la mm-hmm. ñun baadoolo yi mais bon euh, fu ma la bëggoon laaj tamit mooy euh, ki nga xamante ni moom mooy maire Mbao Abdoulaye Pouy ñu koy wax Obama euh, donc voilà moom moo moom moo nekk maire mbaaw moom nee na faute bi daf ko daf ko jël jox ko ville bu Pikine parce que nee bu Pikine moom moo moom moo war a Euh, moom moo war a gérer loolu maanaam moo war a. indi compétence boobu. waaw ma si compétence si compétence am la nekk moom moo war a indi li nga xamante ni moom mooy ay maîtres ay mm-hmm. sécurité. Mm-hmm. pour euh, ñu bañ xale yi bañ bañ a bañ a féefoo est-ce que gisoo ni dafa daw responsabilité tuuti parce que président Macky Sall dafa waxoon ci euh, ci benn li xamante ni moom mooy bi muy wax ak mbokk mbokk ministère yi laa mm-hmm. laa bëgg wax alors foofu dani moom dafa bëgg maire bu nekk na jël responsabilité ci mbir mi. léegi lu tax maire bi di ko jël di ko jox maire bee. ku nekk di ko jiñ sa morom loolu noo ko gisee. non mooy ma wax yëpp si ko xeetu yebaatu la jàpp ni si commune bi bi nga nekk yow war nga mën a gérer si alentour boobu rawatina li xamante ni place de bi matul sax matul cinquante kilomètres diggante boobu yow nga ni mënoo ko gérer. ville a nga li may wax man du ma ko raay la xeetu yebaate la la xew ci assemblée national xeetu yebaate la woon la xew li nga xamante ni mooy li jógee eh, ci ci maire bi en personne mu wax loolu xeetu yebaate la ñàkk wekk population moo ko dal parce que loolu bu muy am ci commune am la amee kon wanu ko ñëw di koy wax Timbo Abdoulaye Timbo man xaw ma ko mais su amoon lu xewoon fii Pikine Timbo moom la ñuy woo moom la ñuy mais lii moom ci commune am la xewee ci zone am la am na loo xamante ne moom yat jéego la ci teg est-ce que jug na daf ay jéego est-ce que naqarlu na ko ba ñëpp yëg ko publiquement mais je pense que dañu ne leen toll nañ foo xamante ni maire bu ci nekk war a di gérer fa nga war a gérer ñu jox la ay dispositions yu mat sëkk kon yoon la moom moom maire boobu mu dem répondre population bi nañu am fulla ak dem yóbbu ko moom tamit devant devant la justice alors bu ñu bu ñu ñu jógee si si si affaire place bi ah, donc euh, donc yow ban ban solution ngay proposer déjà foofu. non solution bi moom je pense que lenn la mooy ñu fexe ba état bi mettre donc. Mm. Euh, en œuvre donc ci wàll li nga xamante ni mooy ay maître nageur. Mm. ñu def recrutement boo xamante ni maître nageur yi aussi ku ci nekk dañu xam ci ban école de formation nga génnee. Mm-hmm. parce que léegi. am nañu association non dafa bari association yi est-ce leen di consulter est-ce que ñoom ñu ngi leen di jox li war mm-hmm. jox est-ce que parce que mhm. euh, bu fekkee ne aussi dañuy ñëw rek jël nit ki ci yaama neex comme ku ci mel ne par exemple yenn ci communes yi dañuy bëgg a ñëw ne dañuy créer ay emploi dem jël Samba bu nekkoon ci kër gi wala Moussa Fall bu nekkoon ci kër gi ci koñ bi juste doomu diw ak doomu diw nga bëgg leen a leen ci kii boobu mhm. est-ce que ñoom def nañ formation mhm. ñi nga xamante ne aussi dañoo def formation bi parce que du formation yaama neex d'accord est-ce que leur diplôme a au lieu de nageur mais noyeur xoolal du ñu egg fa nga xamante ni fa lañ la war a sauver parce que dañ lay seetaan bàyyi la te loolu lépp nag man je damay jël bi yëpp muy parents yi aussi ñu delluwaat jël seen responsabilité di téye seeni doom yi mais également élève bi bu dee dafa jël vacances war nañu am beneen suivi ci biir këram muy continuer def école bi ci këram euh, état bi mu gestuwaat néew di doole ji parce que ñiy dee ñëpp duñu ay doomu Richard ñiy dee ñëpp ay doomu baadoolo la seen yaay ay jaaykatu gerte caaf lañ ñii seen yaay gerte jaay fondé bu ñuy dem sax amaana duñu ko yëg donc yooyu yëpp paaraay nañ ci veillewaat bu baax baax d'accord alors dañuy dañuy daanelee top top info bi ah, donc yéen a ci seen émission ba léegi mm-hmm. euh, top info saa su ne ñuy waxtaane li nga xamante ni moom mooy actualité bi mm-hmm. ñu war ko daaneel ak mbiri Eumeudi Badiane ak ki nga xamante ni moom mooy Ameth alors gis ngeen ni euh, ñoom procureur de la république euh, Serigne Bassirou Gueye mhm. euh, bi mu leen convoqué ñoom ñu ñëw daf leen yóbbu mandat dépôt ba le 29 bii nii juin mardi mhm. lañ leen di jugé déjà mbir mi balaa ñuy ñëw ci mandat dépôt bi acte boobu noonu nga xamante ni voilà ñu ngi lëmbee lëmbe lëmbe toile bi noo ko gisee déjà acte acte acte acte acte de ñàkk doom mhm. ñàkk jom mooy acte de ñàkk jom góor lëm man man man man góor mënuma si moom lëng sax lëng nii góor mënuma ko góor mënuma bokk ak moom sax lal waxuma la ak teg tegante ay ay ay biisu ak acte de ñàkk jom la fan lañu ko defee ci ban contexte lañu ko defee moment bi ñu naan mbirum góor jigéen bi dañu koy xeex waa Jamra ci bee boor beneen association xeex lu bon nekk ci beneen boor ci période boobu lañ ko doon defee moment bi nga xamante ni mhm. papa yeeg yaay yëpp ñu ngi taxaw naan waali yee parce que gis nga waali dafa am ay ay ay maam yee ay papa yee ay xale yee ñoom ñëpp boole ci yee ñoom ñoo toogoon si seen télé bu ñu mënee gis image bu mel noonu sëñ bi dama ne y a des porteurs de voix da nga ko fiy dégg. Mm-hmm. mais eh am na ñoom te c'est des de message. Mm-hmm. te ñoom ñooy. jàllale seen message yi góor jigéen ñi waali waali moom moom sax d'ailleurs moom la ñu njëkk a convoqué bi ñu ko convoqué waali dañu ko bàyyi ndaxte moom daf li mu wax procureur mooy mbir mi bi muy am fekk ko ci kaw seen bi. donc voilà comme amuñu benn preuve bu wane ni moom am na si respons am part de responsabilité mi ngi ci donc dañu ko bàyyi est-ce que gisoon tamit Wally du si dara est-ce que gisoon ñaari magum jëm ñoom ñoo def seen seen yëf est-ce que duñ ci génnee Wally en quelque sorte. ah mais yow image yi ñoo ngi fii dëggindaat ndaat sàll fu mu am tëll tëll kii xëcc tëll gi kay bu ñu demee ba ba daana am koy moom moo ñoom nag li may laaj rek mooy mbir mi lu ñu yàgg def la woon. Mm-hmm. c'est-à-dire dañu ko répété. parce que bu bu fàtte ni képp ku fi artiste fii am na loo xamante ni doo bàyyi ba juge si sa biir chair nga def mais ñoom amoon nañu habitude quand même ah, si si leen yàgg xam amoon nañu habitude souvent bu ñuy fecc di accolade bu ñuy fecc di ànd di def ay fecc euh, bon pas bisu accolade en fait waaye di salsa d'ailleurs waaw loolu dañ ko tàmmoon di def mais bii nii li tax moo moo moo bëgg ñu taxaw si hmm. déjà mandat dépôt bi ñi ngi ñi ngi si mandat dépôt maanaam ñoom hmm. tëj nañ leen tëj tëj gin nañ leen ci nañ leen ba hmm. war leen jugé le 22 mars donc yow xaar ci ci jugement bi parce que mbir yooyu nag euh, Karim Xrum Xax wax na ko bokk na sax moom dafa porter plainte mhm. euh, ci ci ci affaire bi moom nee na xamul xam na ni mbir mi du mujj fenn quoi en mhm. parce que lu yooyu arrangé wul état bi ñuy jàpp koo xam ne ñuy njort ni soit lii nga wala acte contre nature la jàpp na ni bon du mujj fenn naka nga gisee euh, procès bi fu mu war a fu mu war a mujjee no man moom du ma taxaw ne ne diw yàlla lañ ko tëj mhm. diw yàlla nañ ko tëj. ñu ma ko ñaanal kenn leen corriger pour ñeneen ñi. war a lii dañ maa ngi ñëw de diw nañ ko tëj ñaanalu ma ko kenn. waaye lii moom bu ko état bàyyee. Mm. sëñ bi dama ne man dinaa gàddu saak di doxantu. ba kenn ne ma yiw saak bi saaku jigéen la. ndax bu boobaa damay naan dëkk zuma foutisme la. parce que ñii dañ leen war a jël dóor leen. Mm. xam nga lu ñu ci jublu. ñu yar leen ba ku bëgg defaat lu mel noonu du ko def mais nag. bërki démb rek maa ngi xool benn euh, vidéo boo xamante ni ci koor gi la pourtant ci koor gi la daw lu toll ni koor ramadan lu mu sacré foofu lañ ko def muy Ouzin Keita ak euh, Pawlish mbay am na ci benn kii bi ñuy def ba tuddee ko xaw ma euh, cheikh bi mooy seen sëriñ boobu Tafa la Tafa mm-hmm. Touré ñoom ñoo ci nekkoon ak bàyyi ñu joué ko ci benn kii boo xamante ni dafa am piscine ak yooyu mais gis nañ benn moment boo xamante ni Ouzin da doon dox ci wattu piscine bi ànd ak Pawlish ñuy waxtaan mu naa ko da war a bàyyi sëñ bi da ngaa war a bàyyi sëñ bi nga doxal sa carrière musicale nangam nangam mhm. ñuy wax di jàllale seeni i message ba benn instant mhm. Ouzin Dieng ko fa càag commencé y jooy mais lu ci gën a doy mhm. mooy Pawlish daf ko jël tof ko ci kawam seere ko nag Ouzin jël boppam dëxañ ko ci biir mu ma ne ku akolaat jigéen téye ko ba kay naxtaan gestes yu ndaw yooyu ñuy def ak ak ak même sax d'ailleurs ni ñuy waxee xaw a jigéen a tuuti. non mais mais sëñ bi dafa nekk lu doy waar daan nekk lu doy loo xamante ni Sénégal la xewee du Mali. Mhm. xewewul Europe fii la xewee Sénégal. Mhm. léegi nag man li may gën a métti dans tout mhm. mooy mbir day am Sénégal nga ci jug di wax un bu mel ni yow koo xamante ni xëy na yaruñu ko. ndax fi mu nekk nii dafa am ñoo xamante ni yàlla da leen a dimbali leen mooy ñoo xamante ne bénéfice wu nañ tuuti ci éducation boo xamante ne seen waajur yi ñoo leen ko teg mhm. am nañ lu ñu jomb mhm. ñaata nit a fi xëy naan damay dem gore mais balaa ngaa dem gore jaaral ngor ngor gi daa war a ne ci yow ba yu bari da nga koy jomba def nga xam ne yow téye issu d'une bonne famille am na li la war xamal ni suba da ngay faatu dee heure bu ko neex mën na ñëw ngay jigéen jigéen lu tey Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko nee am na ci ay tettal yoo xamante ni mu mujjatal jamono ñu ne ko mooy yenn mu ne bu ñu demee ba góor bu la rombee ngay laaj góor laam jigéen te foofu lañu toll. ci colu beeg ci doxin bi. colu geeg ci doxin gi ci waxin gi ci jëfin gi a mënatoo ràññati jigéen sax bu la yenn ci jigéen ñi billaay bu ñu la nuyu da ngay foog ni góor la. yenn ci góor ñi bu yenn ci góor ñi moom jarul ñu lay nuyu nañu wax rek. bu njëkk ba góor dëgg su mosaan wax nga xam ni ki góor la su jugee dox mooy loolu mais léegi góor yàlla day dox topp sa ginnaaw sax doo xam ni góor la da foog jigéen la ndax ni muy doxee te góor yàlla dëgg bu daan dox bët bët da nga koy dégg bët bët di bët nga dégg ni kii góor yàlla la mais man léegi sax da ngay dox góor topp sa ginnaaw nga foog ni ab xale bu ndaw la parce que a un problème ci ban contexte lañ koy defee ñoom moment bi ñuy xeexee góor jigéen ah, mu doon loo xamante ni sëñ bi dama ne bu ñu bàyyee lii mu dem keneen ku ko neex mun fóonante raayante defante lépp te fu ñu koy defee ci kaw chaîne bi la kon waali bu ñu ko woy war nañu ko woo bu ñu ko entendre war nañu ko entendre fekk na ko am fekk ko fi allah axlam mmh. d'accord d'accord nekk na mbir mu nga xamante ni donc voilà en fait procès bi en tout cas dinañ ko topp xool mbir ma fan lay mujjee ak wànneen fan lay mujjee ak i gëtam comme ni ko olof di waxee fan mmh. ngay daanale ça a été un plaisir quand même ànd ak yow ci top info fooy daaneel. bon man fi may daanelee dama koy yëkkati sax du ma ko daaneel. Hmm. parce que daaneel gi raw tàcc. yow daa doo daaneel du ma daaneel raw tàcc. li tax doo daaneel ko def man damay sant. koy sant jaajëfal ñi nga xamante ni ñoo tax ñu feeñ. mais également sant ñi nga xamante ni dañuy faral di def seen i commentaire moo xam bu positif bi ak bu négatif bi. Mm. mais lu mu ci mënti doon rek damay faral di wax naan le monde est composé de 300 personnes dont les 270 sont négatifs. Mm. mais si y a nag négativité am nañu suñu borom baaxal mooy 30 yi potentiel potentialité booboo tax ñu toog fii di waxtaan ak yéen ngeen di bëgg ñu leen dégg ñu leen di dégg di waxtaan ak yéen faram fàcce leen lépp loo xamante ni. Mm. mooy actualité fii ci Top Actu Dakar Net dama ne ngeen woy rek di abonné. merci beaucoup mbégte ak kontaante la ñu àndaloon ak yéen lañu àndoon ak yéen di leen présenté seen émission bi nga xamante ni mi ngi tudd Top Info saa su ne ñu si ànd ak David Davida le grand chroniqueur Ousin moom mooy nekk ci laaj yi muy baat ak tontu jëmale ci man ak moom régie bi ñi ngi jaajëfal ñëpp ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekkoon ci ci ginnaaw di leen jox rendez-vous beneen samedi ci beneen Top Info